asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu maa ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaara di leen di jox tey benn secret boo xam ne day dox ci wàllu am-am am-am mu nekk mbir moo xam ne ñëpp tey jii nii ñu ngi ko bëgg ndax faj seen ay soxla ndax dund seen rêve ndax dundal seen njaboot dundal seen bopp ndax itam suturaal seen bopp ndax itam yëkkati seen bopp ndaxte am-am mooy faj feebar yi. mooy faj soxla yi mooy jënd yenn mbir yi nga xam ne doomu aadama da koy yittewoo te yàlla moo ñu jox bakkan jox ñu bépp cër te itam doomu aadama dafa am lu mu bëgg te loolu yàllaa ko joxe yàlla ñu ko yàlla may ñun ñëpp waaye tey jox leen benn secret boo xam ne sangat la sangat bu am solo boo xam ne incha allah képp ku ko jëfandikoo moo xam ñu nekk si biti moo xam ñu nekk si biir réew mi moo xam ñuy liggéey moo xam mbécc boo ma a mécc woo lii boo ko jëfandikoo fonk ko di ko def wallahi alazim ma kan waaye doo tàllatu loxo kenn nit ñi ñoo lay ñaan mais doo ñaan kenn incha allah kon li ngeen war a def mooy lii ngeen di gis battu yàlla bii di waduud yaa wadudu moom ngay bind mille fois waaye dafa am nañ koy diviser doo ñëw rek bind yaa wadudu mille déedéet maanaam boo defee kun bisimilah rahmaani rahiim nga ubbi da ngay bind yaa wadudu yaa wadudu yaa wadudu yaa wadudu téeméeri yoon nga taxaw luñ ci war a teg muy alam nashrah laka sadrak wa wadaana anka wizrak allazi anqada zahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع عشر يسرا إن مع عشر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب après moom loo koy bind muy juróom-ñaari yoon kon boo bindee wadduur yaa wadduur yaa wadduur yaa wadduur téeméeri yoon mi cent fois da nga siy teg li nga gis seen écran mi alam nasrah laka sadrak ba mu jeex juróom-ñaari yoon nga defar yaa wadduur cent fois tegaat si alam nasra juróom-ñaari yoon noonu ngay def noonu ngay def ba am mille yaa wadduur nga am Euh, sept sept sept sept sept alam nasara boo ko xoolee daanaka day nekk kon alam nasara bi day nekk dix ndaxte yaawa duudu bi boo ko bindee cent fois teg si alam nasara sept fois bindal yaawa duudu cent fois teg si alam nasara maanaam nu nga koy toppalante ba am yaawa duudu mille alam nasara bi sept fois bu si nekk boo ko xoolee itam day nekk dix kon foofu kon loolu nga bàyyi ko xel bind bi moo nekk nii moom lañ doon bind gis ngeen ko. moo leen doon jox exemple comme li wax toujours rek ñun lépp lu ñuy jëfandikoo dañ leen koy séddoo ay yéen ndaxte yàlla rek moo xam kon doomi aadama yi lépp loo xam ne yàlla jox nañu ko muy xam-xam dañ ñëw séddoo ko ak nit ñi kon lii bu ngeen ko bindee ba pare am bind mi yëpp dañ koy jël na nekk bind bu set sell comme li ma leen faral di wax alxuraan képp ku koy bind wala képp ku koy jëfandikoo wala képp ku koy def itam na fexe yaramam di set di sell ndaxte alxuraan dafa set kon euh, te loolu la yàlla tam recommandé kon bi nga boo amee bind yëpp ba bind ko ba pare nga xooj ko si benn siwo ba ko xoojee ba pare su bindi FA siwo nga génnee kayit yi comme ni ñu koy defee fii kayit yi nga xamante ne nii maanaam danga ko xoojoon ba bind yi dañ da ngay génnee kayit bu ko defee ndox mii nii wallaay ndox mu sell ngi nii lii bu nit góorgóorloo ba def ko ba am ko nii ndaxte lii man yenn saa sax buñ ko liggéeyee ba pare ba ñu nit di bëgg ñu leen di defaral yenn yi da leen di def si ay butéel jox leen ko léegi boo defee na yow da nga koy sangoo. amul nag liim amul ñaari fan wala ñeenti fan wala juróomi da nga koy sangoo ba keroog muy jeex amul lim boo ko sangoo ba mu jeex nag bu la neexee weer bu ne nga def ko saa boo jullee tee su kurus def yaa waduudu yaa waduudu mille fois wala cent fois def yàlla tif yàlla tif cent neexee en tout cas lii koo xam ne góorgóorlu na ba def ko incha allah rabbi mun naa leen waatal ne sa giru dund doo allah kon def leen ko ñu ngi yem fi ba subaa jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.